Yeah. Toujours dans votre acte du jour de ce 27 septembre 2024 ginnaaw accusation yoo xamante ni yëkkati nañ ko teg ko ci ndoddu Macky Sall jëmale ko daal ci benn régime boo xamante ni daal catastrophe la fi bàyyi et puis dafa fen peuple bi dafa mel ni Macky Sall xamoon na ñii suñu ñëwee maanaam ay kaddu yi la ñuy yëkkati moo tax Macky Sall tontu woon na leen balaa ñuy yëkkati seen kaddu Olof Ndiaye nee na ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax ni ngay toogee ki la mag ëpp lay la différence l'expérience ça se montre toujours par par la sagesse nañ déglu ñu président président Macky Sall dellu si kon dama ni li def fi du ko def du ko def Sénégal bi koy jël le 2 avril 2012 croissance économique bi mu ngi toll woon ci 1,7 pour cent kenn du ko weddi ñu ngi départ ak moins 200 milliards ci caisse état bi yoo xam ne engagé nañ ko te amuñ xaalisam ñuy liggéey di góorgóorlu ndax toog nañ fi weer bu ñu fayul ab salaire ndax wàññiwuñu dund gi ndax wàññiwuñu impôt liggéeykat yi ndax amélioré wuñu le cadre le bien-être des populations de ce pays ndax koom-koomu réew mi tolluwul tey ci troisième économie africaine Lolo moy wax ji amul ben rew ci aduna bi bu wax defar amul dañu am défi ko gis jeunesse rew mi ni mu mel sa xel war na ci avenir jeunesse bi war nga assurer éducation formation emploi Lolo moy wax ji université bi deux fois l'année def 1960 ba de 2012 nañ ko ñaari yoon ci diiru juróomi at te kenn ñemoo ko weddi loolu mooy wax ji loolu mooy bilan bi kon nag euh, xam nga xam nga gaañi da ngay toog jàpp sa njàmbur ñu lay cuq di la di la di la di la naa leen jotagul su jotee dana neex soretul bu nit toogee nañ ko bàyyi tranquille moo gën yan koy cuq ak di ko tooñ gaynde guy nelaw wala boog di dajan bu ko yee bu ko yee parce boo ko yeewee sa kaw lay dal te bu dalee sa kaw dana la gaañ te wax dëgg yàlla bëgguma leen gaañ 我不能跟。

ce qui a valu aujourd'hui ñu nommé wat assemblée générale des nations unies bàyyi len sen tiaxan bi wax ak sénégalais dëgg ki mën ak ki koy dafa yen da ngeen di jéem bokk leen kon wax leen sénégalais la réalité su ngeen mënul wax sénégalais yi la réalité le 17 novembre 2024 sénégalais bu nekk jëlal responsabilité boppam xamal leen que ki ko mën ak ki koy jéem bokkul Macky Sall daka mën waa Pastef mënuñu ko dañ koy jéem te jéem bi ba tey jii gisooguñu ban yoon la ñuy jaar pour teg réew mi ci